bi xadar xeexu ko xadar mooy mujje ci xeex bi waaye li koy jiitu xel la ñu ngi ko seetal rek dañoo jàpp ni mën nañ def stratégie ndax sàcc ndënd yomb na trop waaye fu ma koy tëggee looloo jafe ma baamuwaat ne leen dossier bi mënumaa tere nekk candidat 2024 bu dee nag ci loolu lañu bëgg a jëm lii ngeen di ruumanaat li leen mbir mi jaral ak xeex yi ngeen di waajal foofu lañ koy xeex waaye du léegi moo tax ma ne leen bu leen yàkkamti jamono jële des naa benn live ne leen xeex kenn du ko xeex te ñoragul te ñoom ci seen stratégie ci loolu lañu ne waa ji xam na ni jeexal na takk takk takk biir njabootam sax tas na nir lu dul ñi muy fay xaalis ñuy wër ci télé rajo yi di saaga amul kenn kuy nit ku baax koo xam ne tey mu ngi ci biir njabootam Sénégalais yi dëdd nañ ko wan nañ ko gannaaw te ñaari élection yi fi weesu passé la ndax ku jógee kat 65 tey nga nekk 45 pour cent xaw ma 46 pour cent jeexal nga tàkk ci réew mi moom loolu xam na ko moo leen ko gën a xam yéen ñëpp waaye yeeg ku mu yóbbaale la bëgg déglu leen ma bu baax de dama leen di wax waxu xel fi mu ne nii dañoo nekk ci phase guerre tactique stratégie boo ko dul def doo egg fi nga bëgg a jëm. même ñi nga xam ne nitu diine lañ dañoo def stratégie ba yegg fi ñu yegg kon moom ku mu yóbbaale la bëgg yaa deux ans laa leen njëkk a génneel théorie la stratégie di chaos mooy lu muy def ba réew mi jaxasoo rek xeex am fu ne guerre civile sax am si mu profité ci ñu waruñu ko topp ci loolu te war nañoo góorgóorlu ngalawaay ba su dee jàmmarlu dafa war a ci mu doon bu mujjee ci jàmmarloo yi donc bu dee kese ci fukki at weesu amul ci senegal ku ci mën Ousmane Sonko. la preuve ñaari weer mi ngi prison te suul ko la ci jublu woon sénégalais fàtte ko nekk ci leneen waaye ba tey mooy contrôler jeu bi ba tey mooy bi médias yi moom la ñuy waxtaanee matin di soir moo xam ci mbedd mi kër yi télévision journaux ba ci bitim réew ku mel ni nag boo ànd ak moom. da ci ciy boole wóolu ko lu tax nag ñu bëgg a taxaw tuuti ci pàcc bi mooy fan yi ba ñu tolle woon ci retiré fiche de parrainage yi ñu élection présidentielle bu 2024 waa DG bañal mandataire Ousmane Sonko bi di Ayib Daffé ba retiréel ko ci saa si yenn ci patriotes yi dañoo commencé di kaas ci réseaux sociaux yi ci lan moo tax Pastef préparé lu woon beneen plan wala yenn alternative fekk ci même jour bi kii di Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna El Malick Ndiaye Bassirou Diomaye Faye ak Abass Fall dem na ngir tirer seen i fiche de am numéro comme ñëpp toog jàpp seen jàmbur. te du ñoom kese am na ñeneen ñoo xam ne duñu tudd seen tur Ousmane Sonko la ñuy liggéeyal te pourtant. gars yi <clears throat> defe naa ñun ñoo déggandoo lii te ba léegi rek misaal yi bari na dama leen di indilaat beneen rek bismillah ñu dégluwaat. lépp ci organisation la nañu bàyyi wax ñu sew ji ndax jaru ko nit doo nekk ci xeex ku nekk di jiñ moromam ku nekk naan diw deful déeg diw def na yi ñëpp ngi def kenn ku ne dafa am luñ la sant ak luñ la sas te yaa ngi koy def nit na def loo xam ne moo ëpp fuuf li fës te nit gisu ko dafa am loo xam ne àndul ak xeex. waaye toog sa gannaaw clavier ku ne nga attaqué ko te xamoo ko lu muy liggéey ci xeex bi loolu ku bëgg a saboté xeex bi moo koy def bu ñu paree li ñuy def dañu toog def suñu évaluation waaye nañu bàyyi wax ju sew ji ndax amul njëriñ ki nga xam ne yow xeexoo kenn gisu la waaye nga toog sa gannaaw écran di bind di casser moral troupe yi wala di indi xuloo ak xeex ci diggante troupe xeex bi dañ koy gañe te mën nañ koo gañe nañu organiser xeex bi nañ ko synchroniser ndax waxoon naa leen keroog bis buñ ko tasaaree lépp ñu koy defandoo ci territoire national bi xajuñu ci kaw Macky Sall donc fii ku lànk bañ a yeewu rek amaana soit da ngaa gaaw fàtte wala mosoo déglu Ousmane Sonko ak xel à travers mboolem discours yi mës a tenir mais ndeyu bi léegi moom lépp wax na ko balaa dara di xew. Ousmane Sonko wax naa wax a wax ba même bu noppee kenn déggudu ko li tubaab naan son silence parle tekk tekkaarlam sax junj la. actuellement nag ñoo ngi ci phase su parrainage di leen xamal ni même bu dee ni am nañu leaderu Pastef yu récupéré seen i fiche de collecte loolee ñi ngi ko def ci turu Ousmane Sonko ba tey benn slogan moo nekk jour muy Sonko heureusement que mbokk ci mel ni Birame Souleye Diop leeral na ko lu yàggul pour ñu yaakaar ni la candidature d'Ousmane Sonko c'est mort tey la gën a valable te mboolem parrainage yi Pastef fas yéene collecté ci turu Ousmane Sonko lay doon. ñun bett nañ leen ngi dina wax ji xëy na mooy njëkki wax ci mbir mi mais ma wax ko pour mu leer ma leer lii yëpp kenn du fi candidat. Ousmane Sonko reste notre yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaan li nga xam ne moom moo ñu boole muy bëgg-bëggu Sénégal di ñaan yàlla dooleel ñu ci di ñaan aussi li ñu namm ci suñu réew mu baax moomu yàlla defal ñu ko muy ndam incha allahu rabbi euh, gaa yi nag tey dañu ñëwaat rek ci waxtaan mën naa ne sax amaana peut-être du waxtaan sax waaye gën a sonj la sonj ndax toujours doomu aadama moom boo leen àndee te ngeen bokk komba te ngeen bokk li ngeen di xeex rek donte peut-être moom mi ngi lay soññ waaye dina baax yow it boo amee yéene bu baax te nga mën koo soññ nga soññ ko waxtaan bii nag li ko waral c'est parce que dañu gis benn flood maanaam bu ñu nee flood benn attaque bu mag bu pandémie sax lañ koy tuddee ci média yi parce que xam nga il faut ngeen bàyyi xel média sénégalais yi bu baax a baax a baax a baax waxoon naa leen ko keroog dama koy bamtuwaat quatre-vingt-dix pour cent des chroniqueurs quatre-vingt-quinze pour cent des chroniqueurs et des journalistes travaillent pour Macky Sall parce que nit tudd na tur Ousmane Sonko rek ne ku baax la bu demee élection day gagné cela ne veut pas dire que kooku Ousmane Sonko lay liggéeyal parce que boo dégloo seen waxtaan yi dem ba ci biir di nga trouver ne seen waxtaan yi ay galgal la duma bëgg di ko wax nag sax waaye dinaa leen jox misaalu ku mel ni Pape Moussa Sow Pape Moussa Sow chroniqueur dee leen ko déglu bu baax Pape Moussa Sow élément wu Macky Sall la te bis bu ko weddee bis bu ko weddee ngeen ñëwaat ci Tunkara ma wax leen fan la jëlee fan la tibbee man xam naa lépp man damay xam lu bari ma ne patt di leen déglu ngeen jéggal ma man xam nga li bon ci man mooy man kenn mënumaa contrôler kenn mënumaa wax lu may wax ak lu ma dul wax li ma gëm dama koy wax Pape Moussa Sow c'est un élément de Macky Sall newoon naa leen moo fi dugaloon Clédor seen prison ci ay audio changé wul de dafa gën a dem ñembuwaat ñëw toogaat am na yeneen nag am na ñeneen bàyyi leen déglu chroniqueur bandi yi ñuy nasaxal seen xel yi di wane ay nit naan waaw Ousmane Sonko bu bañee kii bu ñëwee non nous notre seul et unique candidat c'est Ousmane Sonko brandiruñu kenn fasaluñu kenn yëkkatiwuñu kenn yóbbuwuñu kenn benn candidat lañu am mooy Ousmane Sonko chroniqueurs yi li ñuy def ni yëpp ab Cheikh Sérim Yérim Seck woo ab Maymuna Nduur woo ay ab ab euh, euh, doomu xaram jële xon woo ak keneen woo ak ay bandi la ñuy dajaloo Aliou Sow mu wal fajri moom xam nga moom biñ ko euh, maanaam feeñalee moom nëbbatu ko moom lui il est devenu un prostitué xam nga dafa am lu tudd comme niñ koy waxee euh, un mercenaire du micro, mais lui, il n'est plus un mercenaire. moom c'est un prostitué du micro. dafa am mercenaire am caga mais moom dépassé na étape yooyu yëpp moom prostitué du micro la donc an na doomu aadama yoo xam ne bu leen leen déglu xam nga nit kuy nasaxal sa xel mais du nañ ñu ne l'islam daf ñu ne bu ñu naan sàngara ñun ñëpp mën nañoo juboo loolu n'est-ce pas mais l'islam daf ñu ne aussi bul dem ci baar parce que boo demee ci baar daf lay encourager pour nga naan sàngara l'islam newul rek bul def zina newul rek bul commettre zina dafa ne laa taqrabu zina bul ko jege xam nga lu tax loolu parce que ndeysaan notre faiblesse nous les êtres humains saa bu ñu wéetee ñu def dara de même manière lislaam daf ñu tere ñu déglu ay naafeq seytaane lu tax ñu nañu bul déglu musique parce que bëgguñu ngay déglu slow music sa awra di ci jóg taxaw sa xel di dem ci ay loof sa xel di dem di sekk ak jigéen loolu moo tax ñu ne la bul ko déglu dañ koy déglu nag mais dañ lay ne nga moytu tentation bi donc yéen ñiy déglu mercenaires yooyu c'est vous qui vous mettez dans la merde kuy déglu mercenaire yow yaa def sa bopp dans la merde parce que nit boo ko dégloo saa boo ko dégloo mu jaxase sa xel lu tax nga koy déglu boo dégloo nit yow yaa ngi toog ngay déglu doomu aadama bi nga jël sa temps yëpp jënd sa crédit consacré ko di ko déglu mais buy jaxase sa xel lan moo tax yow ngay dem di ko déglu parce que xam nga luy danger mercenaire mercenaire day wax li la arrangé di wax li la arrangé di la yeetal di la yeetal ngay ñëw di ko déglu di ko tàccu bravo benn jour mu wax benn ba naaru laay boo xam ne day jiixi jaaxa sa xel yow ba nga dee sa xel bi dootul leer man am naa ay nit yu may woo ba léegi di ma laaj naan ma mais lu tax Ousmane Sonko dem fa donc loolu mooy mercenaire xam nga déjà yow yaa ngi ci ba léegi loo xam ne leeral lañ ko mille neuf cent ajak-jak yaayu mbill mi sax dem na ci attekaay bi ba leeral ko attekat bi ci boppam xam na ne sos na attekat bi ci boppam ba mu amul lu mu toppee Ousmane Sonko dafa créé lu bees teg ko ko loolu mooy travail yu mercenaire mooy jiixi jaaxa sa xel donc loolu moo tax ñun tamit ñu am ay responsabilité bu ñu ñëwee ñu war a leeral doomu sénégalais boo xoolee góor jigéen bi ku mel ni Tange Tandian bu demee bu lekkee xaalis bi ba xaalis bi jeex mu ñëwaat ñu takkaat micro yi di duula ka dajale te pourtant moom ci boppam nee na leen fi barki dem moom il n'est pas n'importe qui dañ koy jox terrain dañ ko jox terrain nee na dañ ko jox xaalis bu bari moom day liggéey mais waa APR xam nañu jeexal nañu donc ñooñu c'est des gens comme ça qu'on a ici ñii wax ni yëpp ñoo la gën a xam ne ñun duñu dem élection ak Amadou Ba Amadou Ba dañu duma ñoom ñoo la gën a xam lool yow yaa gën a yéen a gën a xam ne man ak amadu Ba rek ci ay élection man Ousmane Tounkara ak Amadou Ba balaa une heure ma du ma duma ko balaa balaa neuf heures du matin ma duma ko kooku nu muy demee élection ak Ousmane Sonko ba nga déggee waa APR ñuy wax ba léegi est-ce que dañ leen mës a dégg ne waaw Sonko de billaay bu ñu demee moom élection dinañ ko lebbali déedéet mooy du bokk mooy dañuy takk ay loxoom yeew ay tànkam du bokk loolu mooy seen débat débat boobu pour lan parce qu'ils savent que moom moo nekk ci biir xol yi mi ngi mel ni ñaari nit nopp benn soxna pompa lañ koy wax ci ñun saraxole yi pompa waaw kii yor xaalis bu bari am doole waaye soxna si de baadoolo bi la nopp pauvre bi kii amul xaalis la nopp wax leen ma luy résultat yi boroom doole bi forcé lay jaay parents yi rey seen bopp fële waaye boo moytuwut de soxna si naqar lay reyekkale parce que kii la bëgg moo tax ñu leen di ne l'amour est aveugle notre amour pour Ousmane Sonko est incontestable benn doomu aadama mënu koo dindi benn doomu aadama mënu koo benn doomu aadama mënu koo jaxase ñun Ousmane Sonko la ñu gëm moom la ñu bëgg xam naa Sénégal yëpp nag samay xarit bari nañ fa samay am di jàmm bari nañ mais c'est Ousmane Sonko l'unique est le seul candidat qu'on promouvoit. Point. Donc bàyyil dof yi bàyyil dof yi mais man damay moromu Amadou Ba nga naan ma trois candidats man fan laa jëm ak Amadou Ba man Amadou Ba maag moom bu ñu demoon élection dix heures du matin ma duma ko loolu man damay dara ba ma ne leen il faut ngeen concentrer wu sur l'essentiel ngeen bàyyi band yi ngeen di déglu ces chroniqueurs est-ce que xam ngeen télé Bougane Gueye Dany bi léegi ca télé lan la télé caga la léegi dafa jël téléem bi ci suuf muy alimenter ay journalistes ak ay chroniqueurs pour ñu ñëw di saaga Sonko téléem bi loolu rek la koy doyee Bougane Sen TV il l'utilise pour affaiblir le président Ousmane Sonko Bougane loolu mooy liggéeyam Bougane Gueye Dany son seul et unique travail c'est d'affaiblir le président Ousmane Sonko Bougane gëmul Sonko Bougane bëggul Sonko dem fenn Bougane comme ni ñu ngembee woon Barthélemy Diaz pour mu yàq Sonko mu mu échoué noonu la Bougane Gueye di def est que yéen ngi déggu est-ce que yéen ngi déglu Bougane Gueye Dany est-ce que xam ngeen lan lay njariñ ci àdduna Bougane Bougane Gueye Dany son seul et unique projet c'est de faire tomber le président Ousmane Sonko te ndeysaan man yenn saa yi damay ne est-ce que ñii ñu ko seqal xam naa ne ñu jongu ñu loolu xam naa ko jàngu ñu alxuraan ndax ñoom ñëpp kenn mënu cee tari benn aaya bu mat waaye est-ce que vous prenez le temps pour xam lan mooy justice divine est-ce que yéen ngi jël temps pour déglu xam lan mooy yàlla ndogalu yàlla ndogalu yàlla yàlla dogalam est-ce que xam ngeen lu mu tekk est-ce que xam ngeen yàlla mu dogal doomu aadama doon dara wala doomu aadama nekk dara wala doomu aadama yegg fenn kenn mënu koo gàllankoor ci àdduna bi amul nit bu ko mën a gàllankoor seen wax yi seen jëf yi nee nañu yàlla taal bu yàlla taal wolof njaayee ko wax mu ne sànni ci sa mat moo gën a wóor parce que saa yoo ko jéemee fay day gën a tàkk seetlu leen loolu ci Ousmane Sonko vous ne voyez pas ça vous ne voyez pas saa boo leen génnee teg seeni ay pexe yu bon bëgg koo daan bëgg koo sosal bëgg koo sonal day gën a takk di dem seetlu leen loolu vous ne remarquez pas ça par accident par hasard wu leen loolu vous n'avez pas de bon conseil parce que soo leen amoo amoon conseil dañu leen di ne ah yàlla bu dogalee wallahi boo jéemee taxaw diggante yàlla ak ndogalam day wàccee mbugal sa kaw xanaa yéen mësu leen dégg loolu noppalu leen ci mbiru Ousmane Sonko Ousmane Sonko na leen bañ a neex seen choix ngeen dem toogi seen duusu yaay yi wala ngeen dugg seen suufu lalu yaay yi ngeen jooy amul problème ndax jooy na mu dagane noonu la reetaan dagane waaye jéem koo gàllankoor par force masiba la ndax mbugal mooy wàcc seen kaw rek waaye Ousmane Sonko ala kulli alin dina yegg ala su ala ala maanaam ci kaw si euh, euh, kaw euh, nguuru Sénégal loolu kenn mënu ci dara ndax yàlla loolu la dogal ba pare te yàlla mi ngi ñuy won misaal yooyu est-ce que xam ngeen misaal yàlla nu mu koy wane bu bu buy waaj a taw yàlla buy waaj a taw nu muy def asamaan si day wàccee ay misaal di wone maanaam asamaan su xiin di di gur gur gur di yëngal asamaan si yàlla loolu misaalu taw la donc Ousmane Sonko yàlla won na leen ay misaal ne nga jàpp ko ci biir kaso xale yi ñu ngi koy woyal namm naa la nga bàyyi ko ci biti xale yi ñu ngi koy euh, topp Sonko yaa fi ne ak loo ko mën a def ci àddina mënuloo koo gàllankoor ba du doon président de la République du Sénégal donc nanu moytu nanu moytu nañu góor góorlu ñun tamit ci suñu bopp am nañu responsabilité pour di déglu yàqkat yi yàqkat yi bàyyi leen xel ne Sénégal ñun ñëpp a ko bokk yow am nga ci wàll man am naa ci wàll keneen am na ci wàll nit du sabote li mu moom nit du jël li mu moom bëgg ko tabax ko ba pare di ko tojaat amul sens it makes no sense dafa am sama benn xarit bu ma doon waxal keroog mu ne ma man de waaraatekat bi buy wax dama dafa mel ni man lay waxal ma ne ko yéen ñëpp ñiy def lu jubadi noonu noonu lay mel waaraatekat buy waar waarul benn doomu aadama waaye boo xoolee li muy wax ak li muy misaal ak li muy teg da ngay xam ne ñëpp lay waxal il parle à toute une population kenn ku ne di fa di nga am foo gis sa bopp on est dans un de stratégie wane nañu force dem nañu taal nañu dóor nañu on connaît tout y a on n'a jamais perdu ce combat on l'a gagné d'avance ñi ñu àndal ñoo tiit ñi ñu àndal ñoo jaxasoo ñi ñu àndal ñoo perte fi mu toll nii de tous les points université Dakar sax ñoom ñu ngi jéem a indi gàllankoor université dakaar boo xam ne ñu ngi jéem a fexe étudiants yi duñu jàngi ñu ngi teg ay dill di jox ay nit ay millions foofu ci biir université ak feneen ñun on na gagné sa combat d'avance Macky Sall sait très bien que la population l'a tourné le dos bi ñuy wax ci parrainage ba ñuy indi ay mberum député c'est parce que ñoom xam nañu ne bu ñu demee ci population bi population bi duma leen léegi ñu ngi teg ay deal ñu ngi yónnee ay vocal ñu ngi créer ay application ñu ngi créer ay nit di leen jox ay t-shirt ñu sol ay t-shirt Ousmane Sonko loolu yëpp ragal donc xam nga ñoom xam nañu ndogalu yàlla ñoom xam nañu xam nañu ne yàlla dogal na ba pare parce que duñu sol t-shirt Macky Sall donc ñoom xam nañ ne yàlla ci boppam dogal na ne Ousmane Sonko la la la fiy teg donc ñoom ku ñuy nax bu ñu defee ay deal yàlla la ñuy nax nee nañu yàlla la ñuy nax sauf suuri maanaam njugub ba mu juutoo ne moom yàlla day day saw moom nee na asamaan sa lay saw ku muy tooyal boppam lay tooyal di xasaw xunn nag donc waa APR ñoo la gën a xam ne seen bopp la ñuy nax ndax bu fekkoon ne ñoom ñoo nekk ci yoon bu fekkoon ne ñoom xam nañ ne yàlla am na te ñoom ñoo am doole man nañu gagné ay élection du ñu sol yére Ousmane Sonko du ñu prétendre nekk waa Pastef du ñu prétendre lii prétendre lële bàyyi leen loolu xel mais ñun déjà les patriotes ñun ñooy dooleel band yi ñun ci suñu bopp ñun ñun on est notre propre propre ami et on est notre propre ennemi parce que da gis nit jóge fële mu ne la bul déglu diw waaw bàyyil diw diw àndul ak yow te fekk diw moom yow la àndal wala nit joge fële ne la diw mii yow la àndal te mu leer ko ne diw mii àndul ak yow jox naa leen misaal man du ma layam layame mu Moussa Sow la chroniqueur c'est un mercenaire fi mu tibbee sax xam naa ko xam nga loolu wax ji fa la dee am na ñeneen nag tant que les jours continuent je viendrai vous parler les noms des journalistes des bandits qui son avec le pouvoir de Macky Sall ñuy jéem a nelawal xelu sénégalais arrêtez avec sa il faut être soit radical et juste wala nga bàyyi tappale bi nga def lii tudd ngarale jàmb fii tuuti jàmb fële tuuti ñam fii tuuti ñam fële tuuti bu subaa dina génnaat jéem a dëgëral wala mel ni ku contre Macky Sall contre Macky Sall de dafa leen di nax gaa yooyu ñeme gëmuñu Macky d'accord mais Macky Sall la àndal bari na ci voilà bari na ci de am na ay chroniqueurs yu bari ak ay journalistes yu bari tuddal naa leen ñaari tur rek Aliou Sow moom prostitué la moom prostitué de communicateur la du dara moom du sax góor naturellement góor jigéen la loolu moom du deñ ndax léegi-léegi boo tuddee góor jigéen mu commencé waat xataraa yu am naa soxna am naa jabar waaw nangam nangam teddeewul kenn doom bi mu mujjee am bu ma juumul doom ja màgg na xaw ma ñaataat la am na naa am na ay doom moom waaye màgg na waaw lu mu ci mën a doon góor jigéen bu mag a mag a mag a mag mun ngeen ko bindal tampon feedee ci ginnaawam ngi muy doxantu Dakar buy dox sax day riiju góor jigéen bu mag ñooñu gëmuñu Sénégal Cheikh Yérim Seck képp koo takk doomaraam ci àdduna ji moo may mën a nduur fay takkal ñaari doomaraam yooyu ku ku sa sëriñ digal ne la demal mbeji doomaraam rek demal mbeji ñaar ñooñu Il n'est pas sérieux. Ibou Ouley Ali Sam, il est loin d'être sérieux. C'est pas la première fois que je me bagarre avec lui. Xam naa ne bu ma paree léegi mu bindaat ma message di kaas ne ma grand non yaa ngi may sànni ay xeer. Il n'est pas sérieux. Pape Moussa est tout sauf sérieux. Man du ma waxantu moom il le sait. moom xam na ne qu'il n'est pas sérieux. day prétendre rek xam na ne il n'est pas sérieux. quatre vingt pour cent des journalistes yi ngeen gis ci Sénégal quatre-vingt-quinze c'est des mercenaires Macky Sall képp ku dul mercenaire la plupart des temps daf leen di jàpp xëbal leen wala tiital leen wala convoqué leen mais ñi ngeen di gis ci biti nii quatre-vingt-quinze pour cent c'est des mercenaires am na ci ñoo xam ne sax Macky Sall ba mu leen jàppee ci biir kaso ba ci biir kaso ba bañ leen bàyyee waxatuñu def nañu ak ñoom li ñu war a jëflante ñoom génn nañu ils sont devenus maintenant useless maanaam inutilisable bari na ci ñoom nag jarul may tudd tur dinañ ci ñëw je viendrai sur tous ces journalistes et ces journalistes et ces moo tax ngeen gis chroniqueurs yi takk noonu seeni ay internet boo waxee rek ñu génn gaaw tàllal Fouta Tampi micro Fouta Tampi lu ko nit di tàllal micro kooku lu lu mu am pour wax Sénégal wala bu ñu tàllal beneen dof micro kooku tamit wax wala ñu fii ñu ñuy rey temps yi yëpp dégg naa ci ci ci réseau yi Cheikh Yérim Seck dem na encore ci saagakat boobu nga xam ne nee naa ko artiste bi koy saagaloo artiste bi bisexuel la day tëdd góor day tëdd jigéen bëgguma won yegg foofu nag artiste bi lay saagaloo boo saagee fii nit ñi ma wax la ne c'est un bisexuel il aime les hommes et il aime les femmes ba pare temps yëpp ngeen takk seeni ay micro jàpp ndaw soosu jël Cheikh Yérim Seck sànni ko fële ci xaj astu njoom astu njoon astu njoon ku ko xam boo xoolee xale boobu rek da ngay xam ne am na classe elle a fait astronomical erreur astro moom xam na ne def na erreur catastrophique te muy jéem a rectifier erreur boobu ndax kuy xool ku mel ni Cheikh Yérim Seck ñu accuser que de tous les viols du monde ngay ñëw di sëy ak moom loolu erreur astronomical la donc léegi loolu bi mu ko dalee ndeysaan mu parax parax nag génn ci Cheikh Yérim je pense qu'elle s'est remariée léegi nag Cheikh Yérim yónni gars yi pour ñu koy saaga saaga katu artistes yi yónni imbécile yu mel ni Fouta Tampi ak ñeneen ak ñeneen ñu génn di saaga doomu jàmbur boobu naan ko cagalaak amul ndaw yow naka ngay mën a xamee jigéen bu am ndaw da ngeen ko tëddee yéen xamu leen ne Cheikh Yérim ndaw rek lay dàq ci jigéen xamu leen ne Cheikh Yérim deret daf ko neex c'est un monstre moom buy violer sax ay xale yu am 15 ans 16 ans lay violer Cheikh Yérim quand il viole les femmes il le fait violemment boo duggee ci néeg bi dangay ngay defee ne géeju deret la yéen xamu leen lool. ndaw si dafa suur Cheikh Yérim parce que waxoon naa leen ne Cheikh Yérim am na yeneen ak yeneen bëgguma cee yegg ndax ndeysaan dafa am sama xarit yu baax yu ma woo ne ma waaw am na ñoo xam ne épargne leen comme ñoom defuñu dara ndax am na ñu bari ñu mu dóor. Cheikh Yérim am na xale yu jigéen yu bari yu mu dóor ci Sénégal ba dem jëndi kër ga ngapparu Cheikh Yérim deret moo ko neex c'est un vampire il aime le sang moom buy violer xale quinze ans quatorze ans lay violer pour xale yi deret bi di tasaaroo ci biir néeg bi dëmm la ñaari nit ñooñu moom ak Maimouna Ndour mii ngeen di gis Maimouna nduur dëmm la Cheikh Yérim dëmm la ñoo ñu kenn warul di attardé wu ci ñoom ce n'est pas des mercenaires sorciers lañu parce que xoolal 17 millions de sénégalais ñoo nekk ci ay jafe-jafe 17 millions quelques mercenaires ñoom ñu ne dinañu def lépp lu ñu man pour tënk sept millions yooyu ñoom nañ leen jox seen wàll rek na 17 millions yi dee loolu lu dul dëmm naka la tuddu lu dul dëmm naka la tuddu doomu jàmbur bii di Ousmane Sonko ñu yóbbul ñu ko impôt et domaine pendant quinze ans ñëpp d'accord ne masta sàcc tarfatal ay dërëm yan doomu xaram yi ngeen bëgg a takk seen micro yi duul suba ba guddi jot ah nan nan nga de il est waaw il hors des listes électorales on l'a éliminé pourquoi on l'a éliminé donc dit dit nous wax leen ñu xam nga il est éliminé il est exclu des loolu yéen a koy wax mais wax leen sénégalais yi lan moo tax ñu éliminé ko parce que dañ ko ragal yow mbëre ñu ne dañuy tëgg làmb yéen a ngeen de voilà léegi nag làmb bi tëgg nañ ko par waaw képp ku éligible mosoo sàcc dërëm yéen loolu buñ ko waxee kenn ci kenn ci yéen du dem de toute façon bu ñu nee tey président Sénégal buñ koy fal borom warul sàcc dërëm ay loxoom dafa war a set yéen doo leen falu yéen ñun waxatuñu yéen ngeen di sàcc yi gën a mag di tappalekat yi gën a mag di doorkat yi gën a mag ñun waxatuñu yan ngeen ñëw di wax mais gars dama leen bëgg a dégluloo mbiru frère Antoine Diome ngeen écouter lii Antoine Diome laa leen wax ah. écoutez ça ngeen déglu le frère de Antoine Diome ce qu'il a may leen tuuti gotcha ok voilà léegi ma jox leen exemple am nañu fi mu toll nii un frère du ministre de l'intérieur Antoine Diome bu ñu jox ay contrat sénégalais ay contrat ndekete mbir mi du Franck Timis ndeke Antoine Diome tamit frère am Frank Diome yes my love yeah that's great you see now we getting along oh really you want trouble okay okay okay so get it yeah she's here my here okay comme ni ma leen ko waxee xaaral ma leeral maay loof bi d'abord balaa may ñëw ci kër gi ñuy dagg sama bopp bi Aïcha laa doon waxal sama doom balaa soxna si fii tamit dina voilà léegi kan moo nekkoon ci beneen ligne bi ba ma voilà léegi loolu tamit ñu leer ni ngeen ñu gis ni yëpp ñuy ponkal d'accord euh, parfois aussi on fait les choses claires ma déglu loo leen le frère de Antoine Diome Franck Diome Marème Faye Sall Macky Sall Eh, eh, maanaam eh, Mansour Faye maanaam Farba Ngom maanaam Amadou Ba maanaam diw diw diw combien de corruption on a nommé dans ce gouvernement du Sénégal de tous les bords nañu dem ñu déglu li ñuy wax ci Franck Diome bismillah ngeen déglu ko yéen ñëpp médiatique Juan Branco met en lumière un nouveau scandale secouant le Sénégal voilà dañuy dañuy dem dañuy dem Le frère aîné du ministre de l'Intérieur, M. Franck Bianchidium, aurait obtenu en une licence minière à cœur sans bas, prévoyant un investissement colossal de près de 2 milliards de francs CFA. Auparavant jonglant entre plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, M. Franck Bianchidium conduit désormais une luxueuse BMW dans les rues de Dakar, affichant des projets d'investissement à Sydney. cette affaire soulève des interrogations légitimes quant aux compétences d'un simple serveur et agent de recouvrement d'assurance à obtenir soudainement des licences minières, alors que son frère exerce des fonctions gouvernementales de haut Juan Branco a alerté les autorités australiennes, exigeant une enquête approfondie sur les mouvements financiers récents des frères Diom. Ceci marque le début d'une série d'investigations ciblées sur Est-ce que ñun. Le mouvement, fondé sur la justice et la vérité, vise à restaurer la souveraineté du peuple sénégalais, s'élevant en parallèle avec les poursuites pour crimes contre l'humanité. Nous assistons à un tournant majeur. Le combat ne fait que commencer, et rien ne saurait arrêter cette quête pour la transparence et la responsabilité. Restez à l'écoute. xam ban problème moo am Sénégal Sénégal problème mooy suñu gars yi dañoo jaaxle jaaxle boo xam ne maanaam nga jàpp sa sàcc mu nekk ci biir kër gi tëj buntu kër gi nag ne maa tey léegi fii laay toog dootuma génn ci kër gi looloo leen dal maanaam nga fekk sàcc sa biir kër sàccee mu tëj buntu kër yëpp ne maa tey nag dootuma génn léegi damay toog ci biir biir kër combien de temps nga yaakaar ne sàcc boobu la war a def ci biir kër gi mais dinañu dajji buntu kër gi tôt ou fekk la sa biir kër gi nangamtaan sa ndey génne la yóbbu la prison loolu tôt ou tard day am xam nga autorité sénégalais yi dañu nekk di yéexal processus bi fi mu toll nii loolu lañu nekk di def rek di yéexal processus bi ñaan yàlla ñu sàccaat fi ay élection wala foqati ko par force changer loi dëkk bi yépp ba loi yi duñ leen mën a poursuivre loolu rek lañu nekk di def nii li ñuy def nii yépp xam nga lan la dañu bëgg a fexe coûte que coûte ñu jëlaat nguur gi par force seetal seen arrière comme ni ko moom Macky Sall ci boppam waxee déjà ci ay interview seetal seeni ay arrière xeex lépp lu ñu man ba keroog bu ñu génnee ci réew mi kenn du leen mën a poursuivre Cheikh Yérim wax na ko ci ay interview yéen bokku wax na ko ci ay interview yu bari yu bëree baree baree baree baree bëri Yérim wax na ko ci ay interview yu bare bare bare bare bare bare bare bare bare moom ci boppam mu génn ne waaw wala nit moom booy bàyyi nguur da ngay setal sa ginnaaw waaw da ngay defar sa ginnaaw ba mu set balaa ngay dem il l'a di en maintes reprises Cheikh Yérim Seck wax na ko téeméeri yoon ak juróom fukk ñoom xam nañu ci lu ñu ne ils savent de quoi ils parlent ils savent où ils sont ñoom xam nañu jafe-jafe yi nga xam ne ñoom la ñu jànkonteel li ñuy def ni yëpp ay dóor ils savent ñoom xam nañu ne dañuy fen xam nga lu gën a ci nit mooy proverbe bi Pape Alé di indiwaat toujours ndeysaan di ñu ko fàttali tu mens tu sais que tu mens tu sais que nous savons que tu mens tu que tu et tu continues à xam nga maanaam da ngay fen yow mii di wax xam nga ne da ngay fen yow mii di wax xam nga ne ñun xam nañu ne da ngay fen waaye nga continuer di fen looloo leen la la ils savent mais nag dafa am lu tudd manipulation des masses maanaam nga jël dëkk bi yëpp def ko ay média ak ay chroniqueur ak ay personnes yu médiocre yoo xam ne gëmuñu yàlla ñu jàpp micro yi jàpp tool yi jàpp tele yi fépp di fa toog di fen suba ba guddi jot loolu moo leen dese maanaam yow xam nga ne dangay fen man xam naa ne da ngay fen n'est-ce yow xam nga ne man xam naa ne da ngay fen mais nga continuer di fen léegi nag yow pour nelawal xel yi nga ne d'accord comme man damay fen xaaral ma jël mbir mi ma tas ko ci réseau yi mel ni kuy wax dëgg donte damay fen dina am ñoo xam ne ils ne sont pas conscients du ñu xam ne damay fen yow loolu nga gëm mais ngeen fàtte ne jaww ji jaww yàlla la technologie bi technologie yàlla la loo fen si suba balaa mi di ñu jël sa fen yi tegal la ko fele loolu mooy dëgg comment sa fait-il que vous pensez que vous allez continuer à nous manipuler à nous endormir à nous euh, maanaam à continuer à, à, à faire vos, vos, vos, tactiques de, de, de nous diabolisation, vos tactiques de mensonge, votre politique mensongère. C'est une politique mensongère bi ngeen nekkee di ngeen ko continuer def ngeen yaakaar ne ñun sénégalais yi dañuy toog rek bàyyi leen ngeen def lu leen neex wax lu leen neex te dara du leen ci loolu my my my friend da ngeen juum that's a mistake ça c'est pas possible loolu possible te du am loolu gëm leen ko loolu c'est pas possible te du am man maa leen ko garantiral c'est pas possible te du am ça ne se passera pas et ça ne passera pas dinañu préparer wu dinañu fagaru dinañu dem ak yen ba fu mu yem neex xam leen loolu dinañu xeex ak yéen de tous les bords de tous les coins du monde vous savez combien de Sénégalais ont quitté ce pays et je vous donnerai aujourd'hui benn déclaration on est en de préparer une marche internationale nag dans tous les consulats et dans tous les ambassades pour réclamer nos cartes nationale d'identité boo leen yaakaaree ne ñun ay imbécile lañu di ngeen ñu photographier defar suñu ay carte d'identité dem toogi ci seen bureau yi ak seen néegi jàpp suñu ay carte di reetaan da ngeen juum dinañu Dakar seen ndey ba ngeen génne suñuy carte on va faire des marches pacifiques partout dans la diaspora dans toutes les ambassades du Sénégal et dans tous les consulats du Sénégal que vous nous remettriez nos cartes d'identité parce que élection buy jot carte d'identité yooyu la ñu soxla pour voter di ngeen ñu jox si suñuy carte d'identité par force boo leen ñu ko doxul on va aller dans les domiciles des consulats et marcher là-bas boo leen ñu ko boo leen tëjee consulats yi ak ambassades dañuy dem daalee les maisons sénégalais ci koñ yi ngeen dëkk ñu dem marché foofu xam ngeen ay bandi ngeen waaye ñun ñoo leen gën a bandi ñun ñoo leen gën a wëyu te ñun ñoo leen gën a xam dëkk tey consul New York tëj nañ ko depuis mille neuf cent ajak jak muy duulal nit ñi chaque jour ne dañu dem dem foofu pour violence kenn demu fa pour violence kenn demu fa mais si le consulat est fermé la maison du consul n'est pas fermée On va donner l'adresse et on va nous donner rendez-vous là-bas et on va aller marcher pacifiquement. Comme ça, waa koñ bi xam ne yéen ay bandi ngeen fépp nag on va le faire en Italie, on va le faire aux États-Unis, on va le faire en France, on va le faire en Angleterre, on va le faire partout. ñun suñu consul bi New Jersey la dëkk donc New Jersey la ñuy dem marche marche la ñu ah. marche pacifique moi je ne suis pas intimidé et on ne sera pas ébranlé bu ñu demee ci consulat yi fekk ngeen tëj ko ñu dem fekki leen seen kër yi dem marché foofu bu ñu demee ci ambassade yi fekk ngeen tëj ko ñu dem ci domicile u ambassadeur c'est ça qu'on va faire mais vous allez nous donner nos cartes d'identité nationale par A ou par B boo leen yaakaaree ne ah Macky Sall a donné ordre on va fermer les ambassades jusqu'à nouvel ordre non non non non donc vous allez fermer vos maisons et courir aller au Sénégal et on va vous trouver là-bas mais pour ngeen tëj consulat yeeg ambassade yi ngeen toog ci seen biir kër yi ne pat <laughs> non you told you got us didn't you déedéet dañuy ñëw marche seen kër yi on va aller marcher dans vos maisons et vous allez appeler le président de la République et on va siéger là-bas on va dormir là-bas jusqu'à ce que vous nous remettrez nos cartes d'identité nationales yan xamu leen na ñun ñoo ñoo leen gën a wëyu vous n'êtes que des délinquants vous n'êtes que des bandits préparez-vous vous voyez tous ces milliers de Sénégalais et des millions de Sénégalais dañuy dem dans vos quartiers jolis on va dormir là-bas gars yi kuy ñëw nag na nga indaale sa basang dañuy dem nelawi kër consul dem nelawi kër ambassadeur ba ñu jox ñu suñu ay carte d'identité nationale yoo woowuñu kenn ci violence zéro violence gars yi yéen a may déglu gis nga violence amul njariñ ñun nañ leen tànkal rek voilà we are not going to be violent I'm gonna say this again in English so you understand I know you guys lie and you make up lies I know already the the the security the diplomatic security is watching me I know you guys are watching me I want you to listen and listen very carefully America has given us something that's called our First Amendment right. Freedom of, speech and freedom of expression. And we will enjoy it to the last, last, last centimeter, to the last inch. The Senegalese people are calling on a big demonstration. Now, you guys, the diplomatic security can stop immediately by talking to the consulate of New York, by talking to the ambassador of Senegal. Tell them to give us our national identification cards because we have elections coming up in February in Senegal and we will vote. These criminals are closing all our entities just to hide behind, oh, it was a little vandalism. Vandalizing a place have nothing to do with IDs that are made in Senegal and that's coming and being given to us. If they don't give us our IDs, we will go in the home of the consulate. We will go demonstrate there. And we will set up tents and sleep there until he gives us our ID cards. And we will do it all over the diaspora. We will do it in the Senegalese embassy. We will do it in the Senegalese consulate and we will do it in the Italian consulate. We will do it in the Italian embassy. We will do it in England. We will do it all over the world. But they will give us our IDs by force. We will sit there and we will demonstrate. We will demonstrate until they give us our IDs. If you guys want avoid this, call them immediately. Tell them to give us our ID cards. We are not going to, because most Senegalese kids are even stuck in America today. They cannot obtain their ID cards, even to file for asylum. They've been killed in their countries. Because these criminals have decided that they will hold our ID cards, and we will not allow it. They must give us our ID cards. ID cards are not made in the U.S. They're made in Senegal. But they give them to the consulate. They tell them to hide it so that they can steal our elections. And we will not allow it. And I know the Secret Service, you're listening, and they're going to tell you, oh, he's engaged criminal activity. Absolutely not. I'm enjoying what America has given me. Freedom of speech and freedom of expression. Non-violently, with zero violence involved. Know that. If the Consul General of New York and the Ambassador of Senegal and the Senegalese ambassadors around the world do not give us our IDs, we will go protest in all the embassies, in all the ambassadors' living areas because they closed the consulates and they closed the embassies. We will go in their homes, in front of their in front of homes and manifest there. I want you guys to know this and take it very seriously and we will manifest until we receive our IDs. gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nañu joxante rendez-vous ci fan yi di ñëw. ci këru consul yi ci bureau consul yi ci ambassade yi ba ñu jot li nga xam ne mooy suñu carte dama am ay sources sûres yu ma ne Macky Sall dafa fas yéene jàpp suñu ay carte d'identité saboté yi ci diaspora bi nañu am fulla am fayda dañu xeex ba yegg fii nañu jëli suñu ay carte bu ñu ko kenn xañ nee na yi nañu jàppagum carte d'identité yi denc ko bu ñu defee bu ñu deful pression ñu jaar foofu maanaam consul bi mu ngi jàppalu ay sénégalais di leen fenal pour ñu ne leen bu leen dem ci ambassade yi ak yooyu di ko di di di di di di protester voilà bu leen dem du ñu def loolu dañuy dem protester par force protester suñu droit la Amérique moo ñu ko jox it's our right and we will go protest suñu tëjee consulat yi ñu dem kër consul suñu tëjee ambassade yi ñu dem kër ambassadeur nañu dem seen kër yi ci quartier résidentiel yu rafet yi ñu dëkk ñu tànqal leen borom quartier yi dañ leen di ñu abal leen parce que bruit bi bari na voilà ñoom la ñuy topp ñoom pas ñun bu ñu duggee ci tuunu muus tuunu janax sax nañ leen fa fekk ba jot suñu ay carte d'identité pas avec violence mais pacifiquement ñu tëdd fa di fa lekk di fa tëgg ay sabar di fa yuuxoo di fa jooyoo ba américains yi ne leen joxe leen carte d'identité jàmbur yi nañ leen won ne ñun ñoo leen gën a tekkeeku fépp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu